santaat yàlla suñu borom muy nyare ki nga xamante ni suñu borom fas na yene yéene boole ci teranga ji nga xamante ni moom lañ ko fas yéene terale tey mom suñu yaay ya boy ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax. yaa ndax am nga borom kër. man man day dama tàggoog sama borom kër. ndeysaan. waaye am naa ab takko waaye. ndeysaan. am naa ay njaboot. Mhm. waaw waaye njaboot ñi am dañoo nelaw. Ma, am ñu mujj ño xamne ne ay xalé lañ ki ci gëna nek mak ki euh, kii 97 la judd waaye amul liggey bu deugar doon jang sofor dawal yalla nattu ko ci ñu teye ko arrêté ko ciess gi amna at daw lañ ko téye woon te daanaka lim daan fortaatoo ko sneew moma ci téye nga mayor ay njobori sew ruuj ci top ci ñom fi ne man fee laa dëkk Touba laa dëkk ma bàyyi leen fa kere bi nga xamante ne maa ngi fab di ñëw sama doom ji def ma ne yaay boo demee fooy nekk mhm. ma ne ko waaye nii ngeen di def ku desal jox leen ku desal añ jox leen ku desal reer jox leen loolu naa bañ na naa dem toroxlu ji mhm. su ma toroxlu jee ah julliti yàlla ya yi baax nañ mhm. lu ñu defal ma yónnee leen ko fi mu ne sama numéro téléphone laa yor lu ma kii bu ma wàccee ko keroog la naan ma yaay da yeexe nga lii yow ndaxte fi mu ne ñoo ngi añ ñoo ngi reer di kafe ngoon sax dañ koy tàngal ma ne ko waxoon naa la ko ndax julliti yàlla yi baax nañu lool yow da yàgg na maa dégg sa nag ci rajo yi ak télé yi may wax yàlla tey la ko yàlla doog a dogal dama doon fu ne ut naa fa buntu pour bëgg a egsi lii may wax nii ñi ma xam xam nañ ko bu baax sama borom kër bi nga xam ne moom la ma yàlla boole loon ah duma ne gor gor gor gor ku ne gor bax na rek sa baye tax legi mu baye ma mak sama njobot keur gi ñu nekkon mu jël ko jaay ko nu ko jaayé no nga taxawaalu mak sama njobot ba nëgëni paap jaay billahi wallahi taala penku bi ma jublu barke borom Touba bu fekke ne yilif na borne yalla na faatu bis ni ki tay yoruma borne mak sama waa kër dañuy abri duggu ba tay ñu nang ko bu teyee ñu nangu ko bu ëllëgee ñu nangu ko waaw lii daal mooy sama problème waaw. ndax euh, euh, li nga xamante ni moom mooy li la dal ndax bët yi day metti walla ban tawat moo la yóbbee tey ngay yalwaan pour dundal sa njaboot. tawat bi ma dal li may wax itam ñi ma dégg xam nañ ko ku am jom laa woon ci liggéey lu ne lax naa ca sama loxo dem naa dem naa jogo di di di jaay ndugg. fu ne dem naa fa lu ne jaay naa ko lu ne def naa ko lii nga xam ne moo ma dal nag ba ma ñëw dama damm ci tànk bi ma dammee yàlla dogal ma di ko faju jànnatu tànk bi jël xaalis bari ma def ci lu ne ah am na sax ñu ma ci dimbali ah, waaye yàlla dogal nag bi nga xamante ne war naa koo tekki ji rendez bu mujj ah yoruma moyen yoruma xaalis ma daal di dem ak sama xel rek léegi nag tànk bi di métti dafa day ci wàll bi ci des siggi siggi dox sax mënuma ko waaw yàlla xam na ne siggi dox sax mënuma ko may dox damay temp temp temp ndànk ndànk bu ko bu ma gëddee dox bi rek daanu. loolu moo la yóbbee ngay yalwaan. waaw loolu moo indi turu yalwaan wi moom mm-hmm. waaw. tey ndax ñi nga xamante ni ñooy saraxe ndax dëgg dëgg dëgg ñi ngi leen di jox seen àq seen yelleef ndax ñi ngi leen di jox li leen yàlla diggal ndax yàlla moo ni ëllëg yomal xiyaamatul akbaru ñetti ker doo nga fa am. am na keroog sarax sarax nag nekk lu màgg ndax ñu ngi koy defee na nga xamante ni noonu la ko yàlla bëgg ah man de du ma ne defuñu ko waaye wax dëgg yàlla egsi wut ci man de man waaw loolu moom ku ne sañ na ko waaw wax dëgg man de nit jox ma dara lu dut bi ma tegee sama siwo bi fii julliti yàlla yi boobaak tey wax dëgg ñoo ma yor mi ngi toll ci ay ñetti weer boobaak léegi waaye ñoo ma yor moom ndax mës ngaa xëy suba ba ngoon jot nit fekk la fi jox la saaku ceeb loolu moom amagut moom ndax nit mës na laa xëy ni la yaay demal nga noppalu tey dama bëgg nga jege njaboot gi noppalu jox la même bu dee ñaari junni sax ni la demal noppalu. loolu moom wax dëgg dajeegu ma ak moom moom. tey euh, wax dëgg yàlla ban heure nga ñëw maanaam bis bi li ngay li ngay booy fekkente ne yaa ngi yalwaan ndax di ngay am loo xamante ni di nga ci mën a satisfaire njaboot waaw. waaw waaw dinaa ci am lu ma jox sama njaboot. Ya boy ndax tay da ngaa woor. wala ah, man waw dama wor mom ndaysan fan nga nek fi ci Dakar. man ma ngi yembal échec naa bi dama fi luyee nek ndaysan nah, am ben jigen buma dabon fan ye ci ginaaw di ma ko laaj ne ma dama la doon wër booba tay gisuma la watu nu nak dama mhm. bëgg nga wax ma fo dekk ma ko la yalla bëgg de man Touba la dekk waaw ah, fala sama njaboot ne. waye yembal gi. Mhm. la ñëw luyee fi nek mhm. waaw. pour di am lo lo yalwaan rek yobul njaboot. waaw yalwaan sungone eh, ma da dugalal leen dep nga kan gi sante eh, ak njabot njabot gi di ñetti wer ma fi ñewé ba tey kay gisuma iya, ba léegi gisuma leen ndax namm nga leen oh nama na leen loolu surtout sama dom ji nekk Thiès waaw di sama dom ju gor jo xamantene ne mhm. ah laabir ci man yërëm ma mhm. ta gis nga niñ ko arrêté da doon dawal yalla dogal eh, permis am réer mhm. xanaa foofu nag la gatt xel permis rir mu war ci auto bi fi lañ ko arrêté téye ko daaw ak léegi ñaata at daaw ba daaw ba sa doom jàng Kazu Rajab ba nëga ni mi ngi ci kaso bi. sa doom jooju nu mu tudd. Mor Seye la tudd. ñi nga xamante ni ñooy seetaan euh, Pape social tey yëngu ci wàll yoon ñu ngi sàkku ci yéen Mor Seye di doomam ñu ngi ko dee foofu ci kaso bu cees nañu ko jàppale ndax moom mooy nekkoon soutien fami moo daan jàppale yaayam. Ah, moom ma yoroon yàlla xam na ne de lu masaan daw bu dikkee ne ma yaay jàppal ci lii su ma ko diffusé ma ma nee sombi su ma mënee ceeb sama ceeb ma ceeb lu ma man ma def ko waaw waaye bañ ko tëyee. sama jaaxle dugg moom. tuma ko jaaxle dugg na ma waaw loolu la. jaaxle dugg na ko Baye Aliou ronkoñ yaa ngi dal ci dënn bi ngir doomam jooju nga xamante ni ku sori woon lool ci xolam don soutien de famille ñu teg ko ndog jàppuñu ko ci sàcc jàppuñu ko ci jël alalu jàmbur jàppuñu ko ci agressé ci liggéey ngir dimbali yaayam lañ ko jàppee képp ku yëngu ci wàllu yoon ñu ngi sàkku ci yéen ngeen jàppale sunu yaay ci doomam jooju te yàlla rek tax moo am solo lool bëggoon nañoo xam wax dëgg yàlla nameel gi nga namm njaboot gi tey Eh, ndax eh, pare waat nga pour dellu jege njaboot gi bu dee ñaari fan dama bëgg nga noppalu. man kay bëgg na bu ma sañoon wax dëgg du ma génn. waaw lii kay yàllu yàlla dogalaay bu ma sañoon wax dëgg du ma génn fi ñoom ndax xam nga ne njaboot nga yor leen. ah bàyyi leen. ah waaye nag moo gën nga toog itam. dara. Ah, lu ñu bu ngoon jotee du ñu lekk. kiro alxames bi may wàcc fii. yàlla xam na ko ne day ab xiif laa fi indaale. pass yu ruma kero keroog lii may wax nii safaru taxi safaru oto bu ko dégg dina ne man mako ko maa maa ko maa ko bàyyee paas ba keroog. dégg ngeen ko nee na lek day ba suba ba jot am sax pass bu mu delloo fa mu am solo surprise bi nga teni indil nan ko sunu yaay nanu andak asistan assistance sociale bu papnya Niang ak bonne volonté yi ànd ak wax dëgg yàlla jaamukatu tu yi ñu ñëw teral sunu yaay bëgg mu noppalu ak suba te yàlla rek tax yaay nga xaar ñu ñu indil la terale nyami so mo aduna koy bi ni indil nañ la ñaari saaku ceeb waaw waaw mu si nekk euh, euh, mooy kilo lay def waaw maanaam muy fukki euh, ñaar fukki kilo ñu ñu teg si ñaari gros sukkar tegal la si ñaari tegalasi tàndarma tegal la si ñeenti patu beurre ñaari mag ak ñaari ndaw tegal la chocolat ak fukki litre dewlin ba para ñu fas yéene nag yëkkati xéewal bi nga xamne ne bëriwul waaw ñu daal di koy tek sa loxo muy tollu ci ñenti junni ñu ñu bëgg li ñu bi njëkk bëgg a dégg rek moy sante yalla baatu alhamdulilah. alhamdullilah rabbil alamin sante na leen bu baaxa baaxa baax te li ngeen def day dara fayuko ndax li day wax dëgg yalla ah man dama na ma tedd ay fani fani fan day wax dëgg tok ndax te eh, njoboot ga rek lay dawal. a ah, njaboot ga rek laay dawal dawaluma kenn man jënduma mbubb jënduma daal jënduma dara nuñu nuñu nuñu nuñu nekk ci seen jàmm rek. xanaa xanaa nii nii nii ñu ngi lay wutal oto. fas yéene man ñu ngi lay wutal oto. fas yéene euh, nga noppal sa jëmm ji dañu bëgg tey jii. li des ci bés bi. ak suba. sunu yaay dallu ko. billaay waaw naa ko dallu ko ak gannaaw suba kay. ak gannaaw suba sax kay. waaw ah, bu soobee yàlla ay fan dinaa ko toog dama fi mënee dem tubaa sax. Dina dem seti leen yóbbaale li bu soobee yàlla non non laay def damay dem buma ma demee yóbbaale leen lii. léegi yow lan ngay ñaanal ñi nga xamante ne yëkëti seeni kom i ko ci seen loxo ne defal leen ñuko fi yalla gërëm. mom kay xana mom kay dégg nga wax xana dama dem ba lum kay ah nee len li dara fay ko lima ma di ñaanal nak yalla len yalla katanal yalla len yalla dolel bañu gën ko diko man diko man diko man may len gudd fan may len wir ndax wér rek mooy jàmm waaw wér rek mooy jàmm loolu rek laa leen di ñaanal bu baax waaw ndax kontaan rek waaw. comme ñoo ko déggandoo wér rek la leen di ñaanal kon nag ñëw leen ngeen roy jëf ji yéen ñi nga xamante ne def euh, war ngeen a doxe seen asaka yéen ñi nga xamante ne yéen a yëkkati seen asaka yëkkati seen i xaalis jox ko paap pour mu defal leen ko fi yàlla gërëm yaakaar naa ne gis ngeen ko fi mu ko def. ko na yen ñi nga xamante ne yéenay seetaan sunu yaay fii lay toog ci wetu pont ke Massar bi kep ko xamante ne bëgg na ka dimbali rek nako ko fekk fii incha allahu dégg ngeen ko nee amul kër te bëgg na am kër yen nak ak yen tout est possible. jam ko heewi e dow golle bonde en dam boni daretna futti funi kono won jaloɓe yaay mbaa di nga noppalu man gis so naa toog nopp lu baax a baax. xoolal yaram bi rek. loolu daal lañ bëgg nga nopp. wallaahi ah waaw amiin amiin. yàlla na rees ak jàmm. amiin amiin amiin. lépp li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal. amiin amiin amiin. maa ngi woo képp koo sunu yaay mi ngi fii booy jëmee plan jaxaay balaa nga yéeg. pont Kër masaar bi balaa ngay yéeg pont bi rek boo xoolee sa loxo ndeyjoor mu ngi foofu toog te yàlla rek tax lu ko waay yéene mu bëri mu néew jàppale leen ko bëgg na ab terrain foofu ca tuubaaku ko am ñëwal fekk ko fi dimbali ko te yàlla rek tax nañu tabax sunuy kër ca àjjana mooy tabaxal sunu moroomum jàmm kër te yàlla rek tax